Euh, nuyu Koli Koli Tengala maa ngi ko gis sànq. Euh, di leen nuyu président Ndofène Fall euh, président Cheikh Seck Youssou Diall ak ñeneen ñi ma fi fekk yëpp Pape morlo Lo ñëwoon def li nga xam ne moo war doomu jaraaf bu ne mooy xew-xew yi nga xamante ne xew-xewu bànneex la ndaxte jaraaf dem ba toll fii ci compétition bu toll nii ñu daje fi daje fi li nga xamante ne moom lañ nàmp mooy solidarité ak àndandoo. bu ñu fi ñëwee tamit c'est pour rendre hommage à des générations de sportifs le nañ léegi suñu papa Asdiak, Diack tudd nañ léegi suñu Max, suñu nijaay Ndofène fenfal, ak ñi fi nekk yëpp mais surtout président Cheikh parce que président Cheikh je pense que nit ñi war nañ wax euh, vous avez payé votre dette au sport ndaxte wax dëgg yàlla euh, nekk sportif euh, gagner trophée yu bëri mais nekk sportif gagner trophée yu bëri waxuma la sax jël sa alal di ci def mais événement bu am ñu gis la nga toog événement bu am ñu gis la nga sonn ci équipe bu la sollicité moo xam nawetaan la wala lu ne nga nga nga jàpp ci loolu lenn rek rek rek rek moo koy moo koy andi passion passion parce que passion mooy tax doo taxaw doo toog lu xew nga def ci donc loolu jar nañu rendre la ci hommage te ñaanal la yàlla nga am ndam ci lii parce que boo amee ndam day mel ni luy couronné liggéey bi nga doon def yëpp at yëpp ñu gis ko gis sacrifice yi ci def donc président Cheikh Seck ñu lay gërëm la sant gërëm beeg sant bi du yem ci yow kese ndaxte yàlla def na jaraaf c'est toujours une famille mm-hmm. ndaxte gis naa ñi ànd ak yow gisna naa ku mel ni Youssou Dial gis naa ku mel ni Pape Morlo ñoom ñëpp chaque jour boo leen gisee ñu ngi yor document ñu ngi yéeg di wàcc ak ñeneen ñi ànd ak yow yëpp tàyyiwuñu euh, ngir taxawal lii parce que ñun wax dëgg yàlla euh, ci lañ bokk mais yéen a gën a actif yéen a gën opérationnel et on sent un renouveau au sein du Jaraaf donc loolu jar nañu féliciter leen ci gis nañ modernisation yi gis effort bi ngay def ndaxte football nekkatul xalaat rek nekkatul yéene c'est des moyens c'est de l'organisation donc loolu yëpp yàlla na leen ci yàlla fay te baax na bu ñu fi ñëwee ñu wax ko ñu sant tamit esprit bi nga xamante ne mën wax ne c'est l'esprit jaraaf parce que ñi ngi may tudd di tudd sama waajur mais tey dara gënul rafet nga gis Pape Mor Lo ànd ak commissaire Lo deux générations une même famille papa ak doom toog nekk responsable dans une même équipe maa ngi tooñ léegi commissaire Lo naan ko yaa ngi mën a nangu mayo ba léegi ak ak yooyu dajale mayo yóbbu n'est-ce pas

ñoom ñoo ma wax keroog ne man mais pour jaraaf mais monsieur le ministre est-ce que du ñu def caravane wër quartier bi yëpp ñu xam ne jaraaf dafa xewle te jaraaf fii mooy sii la siège am nekk même bu ñu nee jaraaf Médina siège am fii la ne. Mhm. ni ñuy xam ko donc Cheikh maa lay gën a dénk xale yi. Mhm. ñoom yàlla def na yàlla xiir na leen ci yéen. Mhm. bëgg nañ di gën a utiliser infrastructure bi. bëgg nañ bokk ci lépp li ngeen di def. ndaxte club looloo koy dundal. lu dëgg. donc loolu mo doon cadeau yi di leen gërëm di leen sant ñun nag suñu contribution bu ndaw lañ andi rek pour équipe bi. Mm-hmm. li ci des pour supporter yi nga xam ne ñoo dëkk ci commune bi. Mm-hmm. ñoom Cheikhul Khadim Ndiaye. Mm-hmm. Euh, muy ñaari enveloppe ngir jàppale leen en tout cas on est avec vous. te inshallah, dinañ fexe tamit euh, lii gën a law gën a dox. ngir yàlla may ñu yeneen ndam yu gën a rëy donc loolu moo doon kàddu yi di leen gërëm di leen sant bu baax. monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm di la sant. si sa teewaay bon jour bi dafa nek spécial sax man pour man parce que sans bi ma ñëwee ba gis as ram ba ñëw tok fi samwet wet sama dafa daw sama xel dafa delu si yu si yu bëri daal bon pour loolu ne jaraaf famille la parce que toutes les générations sont là tay mm-hmm. ñom do Ndofène ñom Léopold ñom biran li ñep ñoo ñu tay Mbaye Fall supporters yu yàgg yëpp ñi nga gëj gis yëpp gis nga len c'est-à-dire que affaire bi événement bo boo xam ne tam c'est vrai que Jaraaf euh, tàmm nañu fi événement yi melni mais ça fait je crois 10 ans de demuñu final 10 ans defe naa bu 2013 dañu mujj jouer final ñu ne Casa Sport yalla yàlla tey retourné dañuy jouer dimanche li ma ñaan dal moy yalla defal ñu defal ñu ndam mais lepp nag ci jamm ci fair play ci fraternité ci andando parce que bon Mbour ak Jaraaf ñaari club traditionnel lañu bon te Mbour tam ay ñu gars yu baax a fa dëkk ay ñu gars yu baax yu xam diggante xam kóllëre xam xaritoo te du wóor na ma ne man fête bi dina nekk fête parce que ñaari gi yëpp ay ay lañ yoo xam ne dañu bëgg fête parce que ku ñëw ba final déjà mérite nga mais ku ñëw tam ba final da nga bëgg a gagné mais yàlla na yàlla def nu ñu ñaan yàlla def lu gën pour ñaari équipe yëpp yëpp nekk si jàmm parce que man football bi pour man euh, fête la final fête la waruñu waruñu d'accord football bi commencé yone bi mu jël diko jël di ñuy nekk dans la violence loolu baxul lool nañ ko jënd te ko feulé te man yaakaar naa ne final bi occasion la quand même pour ñu dellu si si dundu dundu moment en tout cas monsieur mi ngi lay gërëm di la sant si sa teewaay bon di wax ne aussi yow sa li nga def aussi sa rôle ñu xaaroo ministre pour dimbali ñu wax dëgg yàlla te ba pare moom comité directeur jaraaf la bokk ñu wax il fait partie du comité directeur depuis 2013 ba léegi si comité mais c'est vrai que aussi nañu comprendre que amul jot ñëw tous les jours loolu moom comprendre parce que ku nekk aussi da nga ñaan yàlla sa nit am ay ay té bu joggé jotam day ñàkk wa té nit nak mënul di and ak yow tey suba mu ñak jot nga ne dafa melni ni baxul wa ñun daal dañuy japp né kenn dafa wéx dafa wéx pour toujours ñun dañuy ñaan yalla nit bu nek seen mu yokku parce que bu yokku amul njariñ parce que léegi mi fi en tant que supporter Diaf mais en tant que ministre de la République ba pare ñëw jàppale club bi ñëw pot wa loolu la quoi mais vraiment moo tax ñu gërëm la man sama wax mënul bari en tout cas yalla ñaan defal jamm ñun ñëpp ñiko fekk yalla yàlla defal ñu jamm yalla defal ñu fekke fête bi nek fête bu neex